Heavy Mess.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 bés bu nekk technique gu sacc bu bees nag division des investigations criminelles teg nañu loxo ab gang boo xam ni dañu doon simile ay accident di sàcc xoolal ma bii technique rek ma ne gang boobu ci seen entreprise du sàcc boobu ñu yoroon lañu ca wammi ci ay millions kenn xamul nu mu toll ndax ñoom daal ni ñu ko doon defee mooy dañuy cibler benn oto ko defee nag kenn dafay ñëw dal di coincer oto bi ñu ciblé ci avalement chauffeur bi nag la ña ca des di profit oto jaar ca beneen wàll ga lu ñu fekk ci oto bi ne ko tuŋaañ yóbbu saak téléphone xaalis ma ne lu ñu fekk ci oto ba yóbbu la wax li leen daane nag mooy dañu ko def ab chauffeur buy wujoo ci turu Osañ dal di yóbbu ñaari saagam li nga xam ne defoon na ay document ak ñaari portable ak carte gab boo xam ni def ko tu ñaawteef yooyu réussir nañ retiré ci trois millions <laughs> ak ñoo mën a sàcc waaye nag ba ñuy def loolu fa ñu ko doon defee dafa am ay caméra de surveillance moo tax Ousseyn ba mu déposé plainte vidéo yi la gars yi commissaire Sarr yi dal di exploité fii mu ne teg nañu leen loxo sama gars yi dañoo xereñ de bi ñu perquisitionné seen bërëb ba ñu nekkoon fekk nañ fa fukki saak ak juróom-ñeenti pochette yoo xam ne bokkuñu ak benn passeport sénégalais bu ordinaire ak ñaari jaaro technique gu sàcc rek la ñu am moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax ñii tamit ab gang boo xam ne ñoo doon lëmbee ndakaaru di wër mbeddi ndakaaru yi ku ñu dajeel génneel la jaasi fëkk la nga yor dem waaye fi mu ne ñoom it teg nañu leen loxo ñi def lu ni mel ñooy commissariat bu unité 15 bu Parcelles Assainies di woo def katu ñaaw teef boobu nag kenn ki mu ngi wuyoo ci turu ñu naan ko alias Jogo ka des di wuyoo ci turu SF ñu naan ko alias Galas ñoom jiwo boobu doon lëmbee Ndakaaru nag bi leen gars yi commissariat xumay di teg loxo ci ab auberge lañ leen fekk ak seen ñaari coro ñuy gundaandaa xalaat ma ne xaalis boo liggéeyul moom yàq rek yàq rek li leen nag ba ñu teg leen loxo mooy xaa jàllo di ab ndaw si jigéen la ñu attaqué ca Parcelles Assainies dal di koy génneel jaasi nangu saagam saagam bu defoon téeméeri junni naka noonu ci la a jàllo déposé plainte ca commissariat bu unité 15 ñu nan deetawaay yoo boobu tamit dal di topp ab entrepreneur ba ca ab benn bunt banque dal di këf ab saagam boo xam ni defoon na un million six cent mille ay waay bàyyi leen waaye ñoom bi ñuy def lu ñu mel ci buntu bi caméra de surveillance yaa ngi fa woon ci la entrepreneur boobu di wuyoo ci turu M ñaa daal di déposer plainte ci même commissariat bi gannaaw nag bi ñu exploité image yi ci la ñu localiser dio boobu ci ab auberge bu nekk ca Cambérène fa police yi defee descente fa lañ leen fekk ci seen olala oh ñuy gundaandaat ak seen ñaari coro ay way bi ñu seenee police yi rek foox la ñu def bàyyi fa seen ñaari coro yi police topp leen topp bu yàgg ba dal leen teg loxo bi ñu fiyotee fa ñu nekkoon nag fekk nañ fa ab jaasi ak pompe à gaz fi mu ne ña nga ay way bàyyi leen sàcc ak agressé moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax ma ne jeexagul de ndax réew mi la ma leen waxoon rek ne feebaru sàcc bu chronique la amee ñii tamit ak gang lañ boo xam ni ña nga nekk foofee ca sànjara waaye gang bi tamit ci li ñu doon yëngu mooy càccu mbaam xuux ay waay ma ne yarkatu mbaam xuux ya nekk ca sànjara amuñu jàmm amuñu salaam ndax gang boobu bu ñu yaree seeni mbaam xuux ba am yaakaar rek gang ba jaar fa ak seen oto dal ne ko tuŋaañ yóbbu mbaam xuux desatul sànjara waaye ñoom gang boobu flagrant délit leen tegee loxo dañ leen a fekk ñu sàcc mbaam xuux gaa yi riir wut si ñu riir wut see leen ci la ñu taalee seen oto ne fox daw waaye nag li tax ñu teg leen loxo mooy numéro plaque d'immatriculation bu oto ba la gaa yi capté ay waay bàyyi leen sàcc bàyyi leen sàcc réew moo xam ne bu adduna bi di liggéey di xool nu ñuy avancé di créer ay plateforme ak ñoom ñi ngi créer ay techniques yi ñuy sàcc rek koo dénk mu ne ko tungaañ lu waay jekku ne tungaañ bàyyi leen sàcc mu doonoon seen xibaaru bës leen yoon ci yeneen xibaaru